waxul nga woo ko ci keneen fa inni xarit damay wuyu wooteeg aji woo ida daan fekkee man la woo nag kon fal yastajibu leen nañ ma wuyu bi ma leen njëkkee woo ne leen ñu jaamu ma wal yuminu bi nañ ma gëm gëmuk tawxiid bokkaale nag yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee tamit daf ko doon ñaaxe. di ko leeral rawat na bokkaale bi ñuy wax ne mooy bokkaale bu ndaw muy bokkaale bu nëbbatu jël nañ ci abu musa al ashari radiallahu anhu mu ne yonte yàlla sallallahu alayhi wa sallam mas na leen xutbaal benn bis mu ne leen yéen nit ñi maa ngi leen di wattandi ko bokkaale bii ndaxte moo gën a moo gën a nëbbu tànki jargoñ kon jargoñ buy dox wala melentaan buy dox tànk yi ni mu nëbbatoo bokkaale moo ko gën a nëbbatu te foofu bokkaale bu ndaw la leen doon wax bokkaale bu ndaw mooy comme ni ko yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam leerale mooy nit ki di jëf jëf yàllaa tax muy jëf waaye mu sóoraale ci nit ñi mu joxe ci misaal mu mel ni nit ki dugg ci jàppe ji di julli ñaari rakka di rafetal ñaari rakka yi ni mu taxawee ak ni muy sujoote mu toroxlu te fekk li tax mu koy def nit ñi koy xool nit ñi la sóoraale loolu mooy bokkaale bu ndaw bokkaale bu ndaw boobu du yàq sa ngëm mais jëf ji lay yàq mooy yonent bi ne leen moytu leen bokkaale bii ndax moo gën a nëbbatu ci tànki melentaan saxaaba yi nag comme ñoom dañoo amoon xel ñu ne yow yonent bi waa kaale boobu naka lañ koy wottandikoo naka lañ koy moytandikoo te fekk moo gën a nëbbatu tànki jargoñ wala tànki melentaan yonent bi jox leen ab ñaan ne leen saa bu ngeen sentiree ne bokkaale bi muy ngistal mi ngi leen di dugg rek ñaan leen ñaan gi yàlla faral leen bàkkaar boobu yonent ne leen wax leen allahumma inna na bika min an nusri am shay'an naalamu wa nastaxfiruka lima la naalam mu ne wax leen ne yow yàlla ñu ngi lay ñaan nga musal ñu si ñu lay bokkaaleel dara fekk xam nañ ko waaye ñu ngi ñaan nga jéggal ñu li ñu xamul ndax mën nga si dugg doo ko xam moo tax booy jàng alquran rafetalal sa ñaan ñàngi te yàlla tax bu nekk nit ñu lay dégg de sooy julli si mbooloo na yem ak booy julli ci nit ci ci sa biir néeg te li ngay def ci lu baax fekk da sa digganteeg sa borom la mbugul bul xëy di ko nettali moo tax ñaan googu dañ koy war wax saa su ne dana la musal ci bokkaale bu ndaw te mooy ngistal wala déggatal boo seetloo arkaanu islam alxamsa muy ponki lislaam yi juróom yooyu dañoo yàlla mel na ni yàlla daf koo yoonal ak yeneen xeeti jaamu yàlla yàlla yoonal yépp yàlla daf koo yoonal pour sàmm tawxiid ngir moytandiku jaamu xërëm li lay dugal ci lislaam mooy ñaari baatu seede yi ñooy ponk bi jëkk ci lislaam ñaari baati seede yooyu boom tawhid kese la waaye soo ñëwee si ñaareelu ponk lislaam muy julli julli léppam tawhid la mooy julli koy jullil yàlla qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamina la sharika lah wa bidalika umirtu wa ana awwalul muslimin yàlla mu ne waxal de samak julli ak samay ren yi sama dund ak sama dee yàllaa ko moom jox naa ko yàlla sama julli la jëkk a wax kon julli yàlla daf ko yoonal ngir sàmm tawxiid ngir daaneel jaamu xërëm ndax boo julli julliloo xërëm ba yàlla ngay julli moo tax yàlla mu ne wa aqimi salaata yi danga nga taxawal julli ngir di ma fàttaliku si julli gi yàlla rek nga war a def sa xel julli boo boo koy tijji liy tijji julli gi mooy allahu akbar loolu mooy baatu tawxid yàlla gis gën a màgg lépp waaw moo tax soxla boo mënti am wala liggéey boo mënti def wala itte boo mënti am bu julli jotee rek da nga fay bàyyi ndax yàlla gën a màgg lépp wax bi ngay wax allahu akbar yaa ngi daaneel xërëm lépp lu ñuy sujjóotal te du yàlla jëli nga ko sa kanam taxaw gii ma taxaw ci kanamu yàlla yàlla rek ko yelloo booy jàng faatiha da ngay wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow yàlla yow rek laay jaam te ci yow rek laay sàkku ndimbal kon loolu julli ñaari misaal rek wane na ne yàlla dafa yoonal julli ngir sàmm tawxid ngir nga sori bokkaale naka noonu itam azaka booy joxe azaka nga koy joxe ak sa tey bakkan yàlla tax nga joxe ko ndax yàlla la ko sant nga koy jox nga nga jox ko ña ko war a jox nekkul yaay tànn ña nga koy jox de yaa koy jox ña yàlla wax ne ñoo ñoo ko yelloo muy ña yàlla tudd ci taw tawba juróom-ñetti xeeti nit yooyu kon kiy joxe azaka mi ngi sàmm tawxiidam mi ngi reconnaître ne xéewal gii yàlla ko jox moo tax mu nangu ko joxe azaka ndax yàlla moo la sant ne alal jii nga am génn ci ab cër moomatoo ko waaye ñu ñàkk ñoo comme ak miskin yi ak ñu mel noo nga nangu ko kon reconnaître nga ne yàllaa la ko jox kon xërëm amu ci wàll ndax lan say def nekkul ne xërëm yi ñoo la ko sant wala sa baaxi maam wala sa yàllaay maam wala sa yaakaari maam déedéet et pourtant am na ñuy joxe ci am mbay xam nga yàlla na ni soo bayee ba góob wa aatu xaqahu yawma xasaadihi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin yàlla mu ne soo bayee ba góob nanga nga joxe azaka ji si bis ba et soo demee si dëkk yi yenn dëkk yi ñoom suñu bayee ba pare balaa ñuy am sañ-sañ lekk ci lañu bay dañuy nàkkal seeni xërëm dañuy dem sa tuur ya seen tuuri xërëmi maam tuur foofu ba xërë ba jàpp ne xërëm yi kontaan nañ ñu doog a ñu doog am sañ-sañ def ay nàkk ba ngay jëkk a def di ko lekk doog see mën a jëfandiku kon ñooñu dafa mel dañoo jàpp seen mbay nii li tax mu baax seen yàllaay maam la waaye jullit bi nga xam ne nag bay na ba pare amul lenn lum ciy jagleel waa këram lu dul dafa génne asaka ba ba pare ni ko yàlla sante kooku moom mi ngi màbb xërëm waaye mi ngi samp tawxid kon asaka tamit dafa ñëw ngir sàmm tawxid daaneel bokkaale boo ñëwee ci koor koor aji woor dafay bàyyi bànneexam bàyyi lekk bàyyi naan ci bëccëgu weeru koor wala ci bëccëgu gis bi mu woore ngir kan ngir yàlla defaloo ko xërëm xaw ma ban jaamu yàlla moom lañuy defal ab xërëm moom mais koor bokku yàlla nee na as-sawmu lii wa ana ujzi bihi koor man yàlla maa ko moom maa koy fay ndax yàlla moo seede ki woor da xërëm moom soo laqatoo xamul ci loo nekk boo jàpparloo woon ak moom sax xamul ci loo nekk wax dama laa boo làqatoo yàlla nag foo mënti nekk xam na kon soo wooree xam na soo woorut xam na aj nag mooy li gën a jëmbal tawxiid moom ndax aj moom léppam tawxiid la lii tijju aj mooy ihraam armal sooy armal looy wax labbayka allahumma labbayka labbayka laa sharika laka labbayk inna alhamda wal mulka lak laa sharika lak loolu ko gën a nekk tawxit amul yàlla yow rek laa wuyu ci woote gi ma woo ndax yow yaa woote ma wuyu la yàlla ma waxoon su maam ibrahim wa addin fi nnaasi bilxajji yatuuka rijalan wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq na nga woote nit ñi aj ci sama néeg soo wootee nit ñi dañ la wuyu jóge fu nekk war lu ne di ñëw wuyu si la kon yàlla woote nga wuyu ko nga ne ko labbayka allahumma yow yàlla yow rek laa wuyu nga ne ko laa sharika lak amul kenn kun la bokkaaleel ci jaamu gi kon jamono ji ngay aj di armal di def labbayka yaa ngi sauvegarde yaa ngi garde sa tawxid di sàmm sa tawxid di daaneel bokkaale kon aj dafa jëmmal tawxid tamit lépp looy def ci aj ci ponki aji dafay ànd ak tawxiid kon juróomi ponki lislaam yi dañoo ñëw ngir sàmm tawxiid waaye jëmbal bokkaale maanaam sàmm tawxiid daaneel bokkaale kon ni ñu ko bi bi ñuy tijj waxtaan bi mooy bokkaale néew na lool ci sunu média yi moo xam télé la ak rajo ña fay wax ñu koy wax di ko leeral comme ni ñu ko war a leerale ndax ñoom ñu si bari si ñoom dañuy seet rek li neex nit ñi ñu wax li li li neex maas bi ñu waxtaane leen loolu ci ay jëf yu rafet ay jikko loolu baax la waaye bokkaale fekk leerul moom tawxiit fekk leerul ci bopp yi ak ci xel yi daanaka leneen loo wax tamit nit ki buñ ko defee tamit njariñ lu bari moo tax nga gis suñ société yi ni mu mel koo jëflanteel mu war la góolootoo kenn ndaxte dañoo war yàlla ba pare moo tax yàlla boo na ne bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko suñ la woree rek yàlla lañ a war kon ku war yàlla keneen koo jëflanteel mu war la bu mu ba nga xam ne nit ñi li ñuy def sóoraale tuñ ci yàlla noo amee rek baax na noo mën a fexe rek ba dóor màpp nit ñi ba am ne alal moom dañ koy lijjanti waaye kenn du ko liggéey kële nag moom wut ay béjjanam wut ay cëwréem wut ay der yu bon dem sa àll ba for yu ay ay ay yu kenn xamul dugg ci ruq ne damay ñaanalaate boo ñëwee mu jox la loo xamante ni ak loram moo gën a gaaw ak njariñam te amul njariñ yàlla mu ne yad'u la man darruhu aqrabu min naf'i yaa ngi yaakaar sa njariñ koo xam ne mu lor la moo gën a gaaw béjjën boobu mu la jox ne la béjjën bi day tax doo accident te def ko sa baaru oto boo amoon xel danga xam ne béjjën bi bu fekkonte ne mën na aar nit ki ba du dee kon béjjën bi fam soxoon kenn du ko rendi ba dindi ko ndax béjjënu bëy la wala béjjënu xar te xar ma dan koo rendi fees ko toj bopp ba génn béjjën ba doog la koo jox kon mënul aar fam soxoon kon nan la la mën a aar naka noonu deru segg bi la jox ne la deru segg la su la mënoon a aar mu aar segg ba fa mu nekkoon loolu lépp soo gisee nit ñi mën koo dund mooy taw tawxiit moo leeragul seen bopp bokkaale lañ faram fàccewul ba mu leer seen bopp bokkaale nag ngaañ bi mën a gaañ nit ñi bari na lool waaye bala ñuy dem ci ay danger ak ay ngaañam danañ jàng benn xadis boo xamante ni mooy firnde liñ doon wax ne la nit dafa war a xam bokkaale te bokkaale lu bon la jullit bi dafa war a xam lu bon ngir moytandiku ko Hudayfa ibnul Yamaan radiyallaahu anhu nee na yonent yàlla sallallaahu alayhi wa sallam nit ñi dañ daan ñëw di ko laaj lu baax man day safaan lu baax laa ko doon laaj ngir dama doon ragal ma tàbbi si te duma ko yëg ndax soo xamul lu baax mën nga maanaam lu bon laa ko doon laaj ngir ragal a tàbbi bon ndax soo xamul lu bon mën nga ko mën nga see tàbbi te doo ko xam Xusayfa mu ne ma ne yeneen yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ñun day laata dañoo nekkoon ci cedd ak ci réer nekkoon ci lu bon yàlla indil ñu yiwu lislaam est-ce que gën est-ce que gannaaw yiwu lislaam bii ak mbon dana ci toftalu yonent bi ne ko waaw waaw tole ko ne ko gannaawul mbon googu est-ce que lu baax dana ñëwaat yonent bi ne ko waaw lu baax dana ñëw waaye dana am ak rax dana am lu ci rax tole ko ne ko loolu di ci rax moom laa bëgg nga leeralal ma ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko aw nit danañ ñëw sama gannaaw dañuy jël beneen ngir bu dul sama ngir donte ko ay jullit la ñu tuddewoo seen bopp danañ def lu baax comme danañ def leneen lu dul loo xamante ni baaxul Xuzayfa ne malaajaat laajaat ne yonent yàlla gannaaw mbaax googu est lu bon dana ñëwaat yonent bi ne ko waaw mooy ay nit yoo xam ne dañuy wootee ci buntu sawara lañ taxaw di woo nit ñi ku leen wuyu ñu tàbbal la sawara loolu ku am ak seetlu da tiit lool suñu jamono jii de da nga ne est suñu jamono la yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam di wax ay wootekat yoo xamante ni buntu sawara lañ toog lañ taxaw ku leen wuyu ñu tàbbal la sawara ñaata nit ñoo lay ñëw di la woo di tuddewoo seen bop ay tour yu rafet ñen ñi sax la wo nit ñi dañ koy tuddé islam te boko jangaté di gis né du islam ay bidaa té te yenti lu wax ci bidaa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnaar lepp lu ñu sax di bidaa ak cyankuté la te jëf ak cyankuté sawara la kon té leen té waxana ñi ni ko lay wo ci bidaa kaay la ñu ñu ñu def jullit sàngam albayta rek ay yun xam ak ñun xamut yoy yep ñu ci diko ko te bidaa la woola ci am naje boo xamante ni ñu ko tuddee lislaam fekk ne safaanoo la lol ak ñu yonte yalla tan sama jangal bari na fi lol yonente bi mu ne ñoñu ay wootekat lañ yu taxaw ci buntu sawara ku len woo ñu la sawara Uzayfa ne ko yow yonent yàlla melal ma ñu nu ñuy mel yonent bi ne ko ñooñu sunu der la ñuy yor ay nit lañ comme ñun te sunu làmmeñ la wax lañuy wax di ko dégg Uzayfa ne ko loolu su ma fekkee jamono jamono ji su ma ko fekkee loo may digal ma def yonent yàlla ne ko nanga nga takkook mbooloom jullit ñi ak seen imaam gis nga jamaatul muslimina wa imaamahum yéen fi ne ko bul beru àndal mbooloom jullit ñi nga tënku ci seen njiit la Xuzayfa ne ko waaw jamono jooju bu fekkee jullit ñi dem nañ ba nga xam ne amuñu kilifa gu leen jiite moo leen li suñ jamono jii rek mënoo wax ne diw mooy kilifay jullit ci àdduna bi yëpp kon nekk ne ko mu ne ba nga xam ne amuñu kilifa gu leen tënk amuñu janaa amuñu mbooloo lu ko yonent bi wax mu ne ko faatazil tilka alfiraqa kullaha walaw an taadda bi aqli sajara xatta yudrikaka almawtu wa anta ala dalik yonent ne ko da nga deru kuréel ya fa nekk yépp ndax dafay fekk jamono joo xam ne kuréel jullit dañuy bari yonent ne ko faatazil tilkal firaqa kullaha na nga beru bul bokk ci benn kuréel ci kuréel yooyu na nga beru kon ndax jullit ñi léegi tasaaroo nañ mu mel ni mooy li suñ borom santaa la wax rek tasaaroo kuréel xel bun dañ fare kuréel bu nekk rek li nga nekkee moom nga naw lool moom nga yëkkati lu dul loolu safu la bul boole sa bopp ci benn kuréel ci kuréel yooyu la yonente yàlla sallallahu alayhi wasallam santoon Xuzayfa ibnul Yamaan buñ demee bu jëmmi jamono ba nga xam ne jurit ñi amatuñ kilifa gu leen tënk mu ne ko doon tëkk da dem ci caru garab wala ci reenu garab nga matt ci ak say dëgëj jàpp ko bu dëgër ba kenn du la xëcc ba nga dee ci loolu nekkal ci loolu kon xadis bi xadis bu raglu la waaye xarit la boo xamante ni war nañ koo mën a jëfee ci suñu jamono ji moo yow jullit bi li nga xam ci lislaam te mu wér ci alxuraan ak sunna mooy donte ko danga cee waaye bu la mbooloo mi bu fekkee te mbooloo mi la ñu tënku dalul sa xel suñ boroom subhaanahu wa taala mi ngi wax ak yow ci alxuraan di la woo yow aji gëm pour nga moytu bokkaale suñ borom bi mu ne yaa ayyuha alladina amanu aminu yéen ñi ne gëm ngeen gëm leen ñi gëm la woo ba pare ne leen gëm leen lu ñuy mooy sax leen ci ngëm bu leen kenn génn ci ngëm bu leen gëm ba pare yàqaat seen ak ngëm mu waxaat ne inna alladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdaadu kufran lam yakun illahu liyagfira lahum wala liyahdiyahum sabila ñi nga xam ne dañoo gëm weddi gëmaat weddi waat weddi weddi gu tar bu ko wéy seen ak weddi ñooñu yàlla du leen mës a gindi du leen jéggal te du leen gindi ndaxte dañoo yàq seen jëf gëm nañ waaye jëf nañ ay jëf yu yàq seen gëm ñu gënaat jëfaat yeneen jëf yu yàq seen gëm yàlla sanctionné leen ne leen dootuma leen gindi dootoo leen am hidaaya taw tawxiifiya waaye tamit duma leen jéggal yàlla mu ne inna allaha laa yaxfiru an yushraka bi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan baida mu ne ñi nga képp koo xam yàlla moom du jéggale ak bokkaale ku ko bokkaale yàlla du la jéggal waaye képp koo xamante ni def nga bàkkaar bu gën a néew bokkaale bu gën a suufe bokkaale yàlla mën na laa jéggal ku bokkaaleel yàlla dara sànku nga sànkute gu soree sori sa gindeeku dana jafe lool kon li ngay jëkk a wax ci mbon mënu bokkaale ak lu mën a juróom ci ay danger kon bokale moy sabab bi gëna reuy bi mëna tax nit ki am ay problème aduna am ay jafe-jafe jafé al-akhirah bokale da fay sabab nit ki nek ci am tit ndax te ki am tawhid bàyyi bokk ak yàlla ko ku koy xuxal du ko tital ku koy menacer mënu koo tiital yàlla mo ne alladina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نيغم يالا تسين غم غراخون كي داركي بوكالة نيو لا يالا دي دفل سيكوريتي كم نمكو دفل إبراهيم تي إبراهيم يتون نالور في جمانوب يقول نب في سوسيته بس دنجن بوكالة يالا بني إن إبراهيم كان أمه إبراهيم كسي مم نسيون لو يت يت بودي يانيك في دق يولا يالا صالح kon bokkaale dana tax nit ki du am sécurité ci àdduna du ko am àllaaxira tam bokkaale ku ci nekk nekk nga ci cànkute gu biir ku ku ko dee ni nga sànkoo ci àdduna noonu ngay sànkoo ci àllaaxira doo jéggi siraat ndaxte saw yoon dafay jaxasooloo bokkaale gu màgg bokale gu mag muy asirkul akbar yàlla du jegalé kuko ku ko te tuubuloo ko sawar mooy sa keur innahu man yushrik billahi faqad harrama allah alayhi aljannata wa mawaahu nar wa ma li zalimina min ansar lol la Isa bnu Maryam waxoon aw nitam képp koo xamante ni ga ak yàlla yàlla aramal na fi yow aljana sa way ëllëg moy sawara mbooleem tooñkat yi kenn du leen tinu yomal xiyaam kenn du leen ràmm du ñu kenn ku leen dimbali bokkoon na ci mbon mbonu bokkaale mooy bokkaale wax nañ ko ci tàmbali bi dafay yàq mboolem jëf gu nit ki jëfoon ci dundam walaw ashraku la xabita anhum ma kaanu yaamaluun yàlla mu ne yonent yi laa wax de yonent yi ku ci bokkaale yàlla sippi sa jëf yàq ko kon keneen matatul wax bokk ci mbon mbonu bokkaale nit ki bu tàbbee sawara ngir sababu bokkaale gu mag dafay sax sawara lu fa mas a génn إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين fi نار جهنم khalidina fiha أولئك هم شر البرية sama borom mu ne ñi nga xam ne ay yéefar lañ bokk ci ahlul kitab amoon nañu ab téere topp ñu téere ba bokkaale yàlla boo xam yahud yi wala nasaraan ba si jullit ñi nga xam ne wal mushrikin dañuy bokkaale yàlla si jamono yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk si umatu muhammad ba pare di bokkaale ñoo ñëpp fii naari jahannam yàlla leen tàbbal jahannam sawara jahannam danañ fa sax xaalidina fiya duñ fa mas a génn ñooñu ñoo yées si mbindeefu yàlla yi ulaayka hum sharul bariya bokk na si mbon mënu bokkaale bokkaale mooy tooñ bi gën a màgg ak fen wi gën a rëy moo tax luqmaan doon na dénk doom mu ne ko yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim mu ne ko yow sama doom bul ma sa bokkaale ak yàlla dara ndax bokkaale tooñ gu màgg la lan mooy tooñ tooñ mooy nga bañ a jox boroom xàq xàqam ki ëpp si yow xàq mooy yàlla soo jëlee xàq yàlla nga jox ko mbindéef tooñ nga yàlla ku tooñ yàlla tooñ nga tooñ gu màgg moo tax mu ne wa man yushrik billah faqad iftara isman azima ku bokkaaleeg yàlla dara sen nga sen wu rëy bokk na si mbon mënu bokkaale képp ku bokkaale yàlla dañ na si yow yenente yàlla salaa sallam dañ na si yow yàlla mu ne وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله yàlla mu ne déclaré naa bisub aj gu màgg ga ba yàlla farataalee aj la yàlla déclaré ne yonent yàlla moom moom yàlla subhaanahu wa taala moom ak ab yonente dañ nañ ci mboolem ñuy bokkaale seqatu ñooñu ñoom ak dara bokk na ci mbon mbonu bokkaale bokkaale mooy sabab bi gën a màgg buy tax nit ki am merum yàlla buy am mbugalum yàlla buy tax mu sori yërmaane yàlla yàlla na yàlla mosal ci lépp loo xam ne dafa koy merloo bokk na ci bon bonu bokkaale bokkaal dafay fay leeru ngëm gi nit ki judduwaale képp ku judd rek yaa ngi judduwaale ak ngëm yàlla yàlla mu ne fitrata allahi allati fatara annaasa alayha laa tabdila li xalqillah dalika diinu alqayim lakinna akthara annaasi laa yaalam yàlla nit ñi dama leen a sàkk ci fitra fitra mooy ak set boo xam nit nit ki da koo set ku juddu rek yaa ngi judduwaale ak ak set noonu la yàlla sàkk nit ñi yàlla mu ne bu kenn soppi mbindum yàlla ni la yàlla bind ñi lay yar buñ ko soppi nga fexe nag ba nit ki ni mu judduwaale soppi woloo ko nga sàmmal ko fitraam muy tawxiidam dalika diinul qayim loolu mooy diine gu jub ga yàlla sallallahu alayhi wa ma min mawludin illa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi yente mu ne képp ku juddu rek yaa ngi judd ci fitra ci ngëm gu yàlla gu set ñi la yar nag muy say ñaari wayjur soo fi nekkee yahut ñoo tax soo fi nekkee nasaraan ñoo tax soo fi nekkee majuus di jaamu sawar ñoo tax kon pas-pas boo am bu safaanoo ak pas-pasu lislaam bu wér Yang ko am yang ko jele sa ña yar ñolo ko def waye ba ngay judd mom si tawxiid nga judd képp ku judd rek ya nga judd ci set yalla waxon na nak la tabdin bu ken soppi mbindum yalla motax ñew na ci hadith yent yalla saa sallam hadith qudsi yent yi mu sama borom neen man day samay jam dama leena bind ñu set wicc tegu ci yoon ñoom ñëpp kenn jàgg ci woon aw yoon waaye seytaane yi nag ñoo leen dikkee ni joor ak càmmeñ ba jàdd loo ba bàyyi loo leen seen diine ñi nga xam ne si lañ sosoo woon seytaane yi ñëw ba araamalal leen loo xamante ni moom la yàlla daganaloon seytaane yi sant leen ñu bokkaale ma man seen boroom ci ay yoo xam ne amul benn firnde bu leer gis nga bokkaale kenn mënu ko defal firnde moo tax nit ñi bu ñu def seeni bidaa ñu ne leen lii bidaa la ñoom ñu ne bidaa xasana la bidaa bu rafet la ñu leen bidaa bu rafet amul gannaaw nekk na bidaa rek rafetatut ñu nekk fa di lay dañuy laya laya lay ba duñ man ba réer ci biir li ñuy layal te duñ ko layal ñu ngi mel ni rek nasaraan yi nga xam ne ñoo ne almasih ibnullah ñu ne Isa doomu yàlla ñu leen meen tax ngeen ne Isaa doomu yàlla ñu nekk fa di ko jiima layal dañuy lay suba ba ngoon di lay bi indi ay lay te lay bu ñu indi du taxaw dañuy mujj ñoom lap ci biir lay yi ba dootuñu ñu mujj mbaal seen bopp dootuñu mën a génn loolu mooy bokkaale mooy loo xam ne yàlla wàccewu ci benn lay ndax lu yàlla wàcce lul firnde mënoo ko wutal firnde bokk na ci mbon mbonu bokkaale mooy bokkaale dafay màbb ay jikko yu rafet ndaxte jikko yu rafet mi ngi bokk ci fitra bi la yàlla sàkke bu fekkente ne bokkaale dafay yàq fitra muy leeru ngëm bi la yàlla sàkke kon kay bokkaale dafay màbb jikko yu rafet bokkaale dafay tax nit ki dootul amati honneur xam nga nit ak ni ko yàlla terale mu mën a jël ak garab ak bant di ko yaa di ci yaakaar njariñam jël am xunt moo xam garabu guy la mu ne mu ne mu dugg ci garabu guy googu di yaakaar njariñam jël ab cëwri ab tëjën aj ko ci buntu këram di yaakaar mu aar ko kooku xam na wàcce na honneuram ngay tukki di tuuram ndox naan ndoxum jàmm la dana tax ma am yoonu jàmm comprendre oo wàcce nga sa honneur yàlla teral la ngay raam kanam kanamu mbindeef mu comme yow di su di ko sujootal te bàyyi yàlla wàcce nga sa honneur doomu aadama su bokkaalee rek wàcce na honneur am ndaxte lépp loo yaakaar yaa ngi toroxlu ngir loolu te yalla rek mo yello ñu torox lu ngir mom kon nañ yaakar yalla kete bu fekkente ne so amé soxla bu jam boo xamante ni na say taxé saxel ci kan lay def kamu dem rek yow koku nga yaakar kon lu nga ngi koku kon dafa dem ci yalla rek wa ala allahi fatawakkalu in kuntum muminin yalla kese ngeen wara a ngeen wara baye seeni mbir am ngeen gem ngeen yalla te itam yàlla joxe na assurance wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbuh képp ku wakilu si yàlla yàlla doy na la kon nañu doyloo yàlla ci suñuy soxla ci suñuy mbir ak suñuy lëpp waaye nit yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp koo xamante ni xëy nga nga wax juróom-ñaari yoon xasbiya allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim nga wax ko juróom-ñaari yoon yàlla aar na la sa mbir ci bëccëg boobu yow bu ngoon jotee nga wax ko juróom-ñaari yoon yàlla aar na la yoral na la sa ci guddi gi yëpp kon nañu doyloo yàlla ci suñu xol wax ko suñuy làmmiñ te ñu dëggal ko suñuy cër bokk na si mbon mbonu bokkaale moom bokkaale dafay tax nit ki alalam dagat deretam dagat yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam nee na umirtu an uqaatila annaasa حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ينتي يا صلى الله عليه وسلم ما ديغل ما خيخك نتني بكرة ني ويتن يالا ني نغو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم buñ ko waxee ba pare nag duñ ci yem de waaye dañuy nangoo julli nangoo joxe azaka ñu defee lii mu ñu indi ponk lislaam seen deret ñoŋ na amatuma sañ-sañ di tuur seen deret seen alal ñoŋ na amatuma sañ-sañ di jël seen alal lu dul ci xàqul lu dul ñu xëtt xàqul islam boo xam ne nee na ku ko def ñu jël sa deret wala ñu jël sa alal donte ko ab julit lu mel ni ay bàkkaar yu màgg lu mel ni njaaloo wala naan sàngara wala yu mel noonu waaye suñ xasee wéetal yàlla nangu ne yonent yàlla sans la mooy yonent bi yàlla nangoo julli nangoo woor dootuma tuur seen deret dootuma jël seen alal wante nag yàlla laa leen di bàyyee yàlla moo leen di atte moo leen di régler ci seen jëf wa xisaabuhum ala allah kon tamit dana nekk danger bu rëy nga gis sa mbokk mu nga koy takfiir lu dul danga ciy am firnde bu leer ndaxte def ab bàkkaar bu màgg bu mag ci bakkaar yu mag yi te boo ci bokkaale wax na génn ci diine de moo xam nit ki dafa njaaloo moo xam dafa rey bakkan ba ci nekk li ñu bañ a tudd muy ñaari turi sax fekk nit ki mi ngi bu ñaari baatu seede di julli di woor kenn waru koo génn ci diine waaye nag bis bu bokkaalee te mu am ci te moo ko tey burhaan bi ñu am ci ci moom bu leer lay wu leer ci wàcce ci moom mu def ko te moo moo ànd ak am xelam kenn forcé ko kooku moo génne boppam ci diine bu defee bu defee bokkaale bu mag bokkoon na ci mon monu bokkaale te bu ñu waxee bokkaale mooy bokkaale bu mag mooy dafay waral ak noonoo diggante ñaari àndandoo bu dee kenn ki dafa bokkaale bu mag amatoo sañ-sañ yow jullit bi di féeteeg sa péete nga koy defal koo xamee dafay bokkaale yàlla bokkaale bu mag loola Ibrahim waxut yàlla mu ne am ngeen royukaay bu rafet ci Ibrahim ak aw nitam Ibrahim ak ñamu mu àndaloon gëm yàlla dañu wax seen nit ne dañ nañ ci yéen bokkatu ñoo génn dara féetewun toog ak yéen ak mboolem bi ngeen di jaamu te du yàlla dañ nañ ci ñoom weddi nañ leen nangu nañ la nekk ngeen nekk yéefar reconnaître na ne ay yéefar ngeen moom yéefar bi da nga war a reconnaître ne ab yéefar la yéefar bi soo nanguwul ne moom ak yéefar la salisum def na te noonoo ak nañeel dox na suñu diggante ak yéen faw kañ lay deñ mooy su ngeen nangoo wéetal yàlla fekk wéetul leen yàlla fekk yéen a ngi bokkaale bu mag bokkaale bu mag mooy nga yaakaar keneen ku dut yàlla di si yëtal keneen ku dut yàlla di jaamu keneen ku dut yàlla di rendil keneen ku dut yàlla li nga war a defal yàlla nga koy defal kooku yaakaar say njariñ ak ragal say lor ci moom sa pexe ak sa gudd fan nga yaakaar ko ci nit wala ci leneen lu dut yàlla bokkaale bokkaale bu mag nga def ndaxte loolu bokkaale pas-pas la ku ko def jullit ñi doot warutu waratuñoo féetoo ak yow noonoo ak mañeel mooy dox seen digganteeg yéen ndax yàlla nee na loolu na ngeen ko royee ci Ibrahim ak ñi mu àndaloon kon suñu mbokkum jullit nañu moytundiku bokkaale bu baax léppam moo xam la ñuy tudde bokkaale bu mag ak bokkaale bu ndaw ndax la ñuy tuddee bokkaale bu ndaw tamit ndawul ndax dafay yàq sa jëf jëf ja ngay jëf te bokkaale bu ndaw moom dafay wàññi ngëm donte ko du dindi ngëm waaye daf koy wàññi yàq sa jëf ndax te jëf ja ba nga koy jëf yàlla taxul woon ñu mel ni kiy saraxe rek ngir nit ñi tagg ko kii jàng alxuraan ngir nit ñi ak a neex nit ngir nit ñi wax ne ak a neex mbaat kiy julli di rafetal ak julleem ngir nit ñi ne kii daal ak a baax kooku koy def na nga xam ne yaa ngi bokkaale bokkaale bu ndaw kon loolu nga doon def yëpp yàqu na te yéen yàlla sant nee na loolu laa gën a loolu laa leen gën a tiital yéen jullit ñi li ma gën a tiital gën koo ragal ci yéen mooy ngeen tàbbi ci bokkaale bu ndaw ci ngistal ak déggatal ak jëf yi ngay jëf nga waroon see jublu yàlla nga jublu ci àdduna kon nañu moytu bokkaale léppam moo xam li ñuy tudde bokkaale bu mag ak bokkaale bu ndaw ñu ngi ñaan suñ borom subhanahu wa taala mu musal ñu ci bokkaale bu mag bu ndaw ñaan yàlla mu defal ñu jàmm yaram ak jàmm adduna ak jàmm àllaaxira ak jàmm diine kon foofu lañuy ñuy yemale suñu fàttali bi leen fàttalinte ak yéen di wax suñ di ñaan suñ borom subhanahu wa taala mu jéggal nu njuumte yi waaye lu ci jub rek ñu xam ne suñu borom subhanahu wa taala mooy ki nga xamante ni moo ñu defal tawfiq yaanu yàlla boole ci nga xam ne bu ñu déggee wax jël sa gën a rafet wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk yéen la ñu war a sant yéen ñi nga xamante ni yéen a tijjul bunt bi ñu mën a waxtaan ak ñu bokk jullit ñu euh, yokkante ci wàllu xam-xam kon yàlla ne yàlla sàmm te yàggal taxawaay bi gën a oyofal liggéey bi ndaxte liggéey islam moom nii la ku nekk rek côté ba ko nekk danga koy jàpp fexe rek ba ku bëgg a màbb lislaam di ko jaaree sa côté te ni nga ko mën a defee mooy nga ñoŋal sa wet li nga war a liggéey ci lislaam waar wi nga war a bay nga bay ko moo xam da ngay jàllale ay waxtaan la wala li nga xam ci xam-xam bu ndaw nga koy wax wala ngay woo ay borom xam ñuy waxtaan suñu waxtaanee pare nga jàllale ko ci réseaux sociaux ak ni mu gën a yaatoo yépp loolu moom lu ñu soxla la ci jamono ji ndaxte jamono yi informatique la ñu nekk jamono technologie la ñu nekk kon ku bëgg liggéey lislaam il faut nga sóobu ci te jullit ñi waruñ si def gannaaw ndaxte mboolem xam-xam yii ñuy ñuy jëriñoo yëpp ci àdduna ko jëriñoo buñ ko toppee sa gannaaw ñi ko sosoon ñi ko xalaatoon yàlla jaar seen loxo ñu si bari ay jullit lañ. ko allah kon jullit si dellu gannaaw te lii ay jumtukaay la rek jumtukaay nag ku nekk yaay seet la nga gëm nga mën ko fee wéyal. macha allah mën naa jëriñ ko mën naa lor. comme am na côté buy jëriñ nag ñun ñu féete si côté bi jëriñ rek. macha allah di eh, gërëm mbokk yi ci topp gi ñu ko dem topp. alhamdulilah di wax rek ñu pare nañ pour bu fekkente ne soxlawaat nañ ñu tamit ñu waxtaanee ci yeneen thèmes incha allah. waaw incha allah yàlla ñu yàlla sàmm te wattu leen te barke liggéey bi. amiin amiin wa jazakumullahu xayra fii kiba fii ka barakallah xam naa incha allah ñëwaat ci yeneen jataay yu ay tomb yu fasante ne li ko tax a jóg mooy jàng jàngale. waaye teg ko ci alquran ak sunna waaye ci déggi lu mag ñu baax ña muy muy yonte bi salaa salaam ak ay sahaba insha allah insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته